jaajëf Fama di leen jaajëfal bu baax ah, di kontaan ci yéen bu baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV ci biir réew mi ak bitim réew di am bu baax nee naa leen mbégte bi lan la di leen gën a fës ci xibaaru làmb noonu laay def daal di nuyu sama naataangoo ma toogal di sama mag di sama xarit Mbaye Babacar ñu daal di ñëw leen li gën a fës ci xibaaru làmb maa ngi lay jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay di la ñaanal jàmm ak salaam di kontaan ci yow saa su ne di kontaan ci suñu xarit yi nga xamante ne bii ñoom tamit ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm ak salaam comme ni nga ko waxee mbégte mi mooy di leen jukkil li gën a fës. ci yéen kay la ay ca bismillah. ci noonu laa def daal di sant gërëm ah nga xam te ne nii bu fekkee ba neexee ñoom jàpp ci. mbagg yi. di huile uh-huh. bu mu ànd ak boo kayaar ndox mi ñuy aar kenn du ñoom ci biir réew noonu laay def rek ne saraax ci journalu làmb comme koy xëyee nag mooy Leewtoo point net Leewtoo point net comme xëyee di ko bind. Uh-huh. l'arrivée du lion Balla Gaye numéro 2 borom Géejawaay. gannaaw ba mu jógee fële ca Paris INSEP ba mu jógee andi di sànni ay kàddu nag Mbaye Babacar mooy adversaire di Bombardier. Bombardier nee na ko billaay da nga xam ne li ma andi su ma la ko tegee doo ko attan gis nañ ko mu ñëw di euh, di di di tëkku ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier mën nañ wax ne daal Balla Gaye fi mu toll nii pare na ci côté yépp préparé na combat bi ci ni mu ko war a préparé fi mu toll nii nee na le 31 juillet rek lay xaar ndax li mu liggéey am na yaakaar ne bu jàkkaarloog Bombardier. combat bu njëkk ba ak bii. du doon benn wallaahi loolu la Leewtoo point net bind tey. te noonu nag laa ne saraax ci journal suñu lamb. suñu lamb moom nag ba xëyee ndax ginnaaw Balla Gaye defee ay attaque am sànni ay tàkk ay kaddu nga xam mooy adversaire am. Hmm. moom ba xëy xëy na ca Fessoso le titre Balla Gaye numéro 2 Bombardier à la 2STV dimanche nee na la taf leen seen nopp. nopp yi dana vibré bu baax ah, mu mel ni Bombardier dana am occasion wu tontu ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye ci euh, lim ko wax bi mu soogee wàcc ci aéroport bi loolu nag suba la war a am fële ca 2STV ñu war a def seen jàkkaarloo ba nga xamante ne bii mën naa wax ne bu nekkul jàkkaarloo bu mujj tamit moom mooy topp ci bi ci bi bi war a mujj parce que le 24 war ñoo jàkkaarloo waat mais suba war nañoo def face to face foofu ca 2STV ku ci nekk jàkkaarloo ak sa morom waxante ak moom. incha allah mu nar a nekk face à ba nga xam ne day tàng jër ndax Balla Gaye ku ko xam-xam ne du wan baat Bombardier tamit mbër waxul benn xale bàyyee bàyyee gum naa la ak yàlla loolu la ñuy dem coach jamono coach jamono kam xëy di xamale mooy combat bi dox ci Balla Gaye ak Bombardier ni nag na ci amee mbébaaw ndax li tax mu wax loolu coach jamono moom nee na ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat lañu ay bagarreur lañu ba pare ñoom ñaar dañu pare physiquement ba pare ñoom ñaar ay mbër lañ ya nga xamante ne bii ay attaquant lañu du ñu xaar Balla Gaye bu arbitre soufflé da lay attaqué Bombardier bu arbitre soufflé dalay lay attaqué loolee tax mu ne komba bi dóor mu daanu bu ci amee du ko bett parce que ñoom ñaar ku ci nekk da ngay dox wuti sa morom kon bu ñu dajee lu nekk war naa mën a am coach Jabon moo yëkkati yooyu le kàddu ba pare nee na làmb ji fi mu toll nii dafa commencé ubbeeku. ndax combat yi ñu taxawal yépp ci saison bi ren ay combat yu neex la ay combat grand contre petit la ay mag ñi dañuy tàllal loxo xale yi ngir mën a bëre ak ñoom bu njëkk nee na doon doon gis gars yi seen biir rek la doon bëre VIP waaw cercle des VIP mais léegi gis nañ ne ñi ngi jox xale yi seen sens ba ñu dugg si Ama dugg si na Boy ñaa dugg si na keneen ak keneen war naa dugg si ci uh-huh. loolu nag Elton aux États-Unis l'Est de en Belgique ñi laaj suñu làmb mel ni dafa samp laaj ne Balla Gaye est-ce que combat bi du wér ci préparation bi ndax mi ngi ñuy fàttali digganteem ak ki nga xamante ne bii moo di du Xarañ loo bi muy bëre ak moom Sa ak Omar Sall ñu naan ko muuma ñoom ñaar ñoo ko doon jàppale ci li nga xamante ne bii moom mooy contact yi waaye gisuñu woon ñi nga xam ne ñoom ñooy ay Elton ay Les 2 ak yeneen leet naa yi nga xamante ne bii ñu ngi ci gànnaawam suñu làmb di samp laaj ne est-ce que Balla Gaye loolu du nekk la nga xamante ne bii manquement buy nekk ci ci buy buy buy am ci moom lay doon ba pare ne est-ce que euh, Balla Gaye juboo na ak leet yooyu nga xamante ne bii fépp fu mos a ba bu mos am combat dañ koy gis euh, ñuy contact ak ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye. ca loolu nag dañuy dem ba fii nga xam ne mooy arène nationale dimanche ka ca nar a bëre mooy cat ak nga xam ne mooy mujj bu yoof loolu journal bi di wax nag mooy tëkku ka nar a perte Mbaye Babacar. waaw ah, ka nar a perte moom wax dëgg yàlla waxuma laa saako yi sax waaye da ngay surux parce que combat boobu moom ñoom ñaar. dañoo dañoo dañoo xaw a gëj a bëri euh, prince moom moo tëgg loolu borom PABC Events moom moo tëgg combat boobu nga xamante ne bi incha allah combat bu nar a neex la mojja mojja nag nekk nekk nekk xale ba nga xamante ne bii dafa war a ñëwaat ci làmb ji war a indiwaat taxawaayam war a wanewaat leneen ci làmb ji caat gannaaw bu mu demee États-Unis waajal boppam bu baax a baax a baax euh, suñu papa booy bambara génn àdduna ci gannaawam ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko lii mooy première sortie suñu làmb nee na loolu dina ko dina ko bëre waale paa bi dina ko manqué ba pare euh, euh, préparation bi nga xamante ne bii paa bi doon na ko ci jàppale loolu noonu mën na feeñ ci combat bi mais caat nee na li mu bëgg mooy jël ndam li déje ko ki nga xamante ne bii mooy papaam. loolu dina nekk motivation pour xale bi dina nekk source de motivation ci moom. te noonu nag beneen combat beneen choc ba ngeen tuddee deux combats dox ci diggante booy Diop ak Xeeru Ngor dimanche lay amee Mbaye Babacar. Boy Diop ak Xeeru ngoor Ama Evans. moom moo tëgg loolu incha allah booy booy Diop mi ngi bokk écrit bi ñuy wax sàkku xam-xam xeeru ngor mi ngi bokk écrit ngor écrit olympique ngor di ñaari xale yi nga xamante ni bii ñaari xale yu mën a mobiliser lañu ñuy xaar incha allah stade bi fees dell gars yi yëngal ci kaw ñoom ñu yëngal ci suuf ñu doon gis combat ba nga xamante ne bii ay combat espoir lan parce que ñaari xale yooyu dañoo dañoo mën bis. suñu làmb nee na ñaari xale yi dañoo mën bis te bis bi dañ koo waajal bu baax a baax ci côté spectacle danañ gis lu baree baree bare beneen choc bañ jëm nag waaye daañu koy tuddee rendez-vous technique à Iba Mar ka ko nar a bëri nag mooy doomu Jalaaw ak Boy Niang numéro 2 bii nag beneen Boy Niang numéro 2 du curuku curuku. waaw ah, bokk nag borom kopp foone bi eh, mu war a am foofu ca Iba Iba Mar Diop ah. Iba Mar Diop Fallou Ndiaye moo ko tëgg boroom Ndiaye production. moo taxawal boobu le combat diggante doomu jalaaw ak Boy Niang numéro dë euh, nekk ak combat ba nga xamante ne bii ñoom ñaar daanaka dañu bokk ci di dañu dañu xaw a nuroo dynamique bi ñu nekk ndax ñoom ñaar ñëpp ci ay gàllankoor la ñu jóge ku ci nekk ci defet nga jóge te mbër mu jógee ci defet nag day naqaree bëreel parce que ñam na ñam na day ñam victoire mais day ñam defet te mbër boo jógee ci defet li ngay bëgg mooy sa combat bi nekk sa kanam nga daan ko bu ñu xoolee ki nga xamante ne bii moo di euh, doomu jalaaw mën nañ jàpp ne euh, ci defet la jóge doomu jalaaw ki nga xamante ne bii boo ñaar numéro 2 ki nga xamante ne mooy ndongoloo moo ko mujjee daan ndongoloo moo ko mujjee daan ki nga xamante ne bii mooy euh, doomu jalaaw ki nga xamante ne bii mooy yanda moo ko mujjee daan nekk ñaari mbër ya nga xamante ne bii ci ay defet la ñu jógee incha allah ñu leen di xaar nag ñu war a andiwaat leneen la nga xamante ne bii bokkul ak leen àndoon seen combat yi mujj ci loolu nag beneen ndaje espoir bay am fete Ceeskaay benn dëkk ñaari gaal samedi Pape mbay moo koy bëri nga xam ne mooy Boy Jobaas Mbaye Babacar. Assane production moo taxawal loolu le moom nag bi yoon euh, gannaaw ba mu dëggee euh, fi nga xamante mooy Dakar tëgg Jurbel ma nga ceeskaay benn dëkk ñaari gaara foofu la fas yéene tëgg baa ba nga xamante ne mooy dox ci Pambaay ak ki nga xamante ne bii moom mooy Euh, booy Jobaas di combat bu neex Pambaay moom moo jiite moom mooy tête de filu écrit R100 mbooloo di xale bu bëri coow tamit ca Thiès boo ko fekkee Thiès daanaka na Modou Anta mel Thiès noonu la Pambaay mel foofu nga xamante ne bii moo di euh, Thiès ki nga xamante ne mooy doomu Jobaas nag di mbër mu mbër mu mbër ba nga xamante ne bii mbëru gox la. ndax mën nga dëkk Jobaas te bu ju jógee commune bu Jobaas yépp dañuy jóg àndandoo ak moom euh, mu nekk combat ba nga xamante ne bii combat bu nar a neex la foofu ca Thiès kaay ñu mën a xaar Assane Ndiaye foofu ca Thiès mu fas yéene fa tëgg li nga xam ne mooy journée bu neex. beneen journée lañ dem di deuxième journée bi nga xam ne mooy Thiam production samedi bii journal bi nag li xëy di samp laaj mooy si Jal Bawol peut arrêter Thiatou Yaraax ndax. waaw mu ne est-ce que Jal Bawol dina mën a. arrêté caatu yaraax ci dynamique bi mu nekk xam nga caatu yaraax dafa toog ci juróomi victoire dafa am cinq victoire euh, bëgg nag sixième victoire ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Zal Bawol mais est-ce que Zal Bawol euh, di loolu noonu euh, dina ko may ki nga xamante ne bii moom mooy caatu yaraax nekk combat ba nga xamante ne bii boobu tamit mën nañ wax ne combat bu neex la combat boobu incha allah euh, ki nga xamante ne bi moom mooy caatu yaraax li mu bëgg mooy sixième victoire la bëgg Zal Baol nag li mu bëgg moom mooy freiner xale bi wan ko ne ko fii nga teg sa fii nga jaar du jaarukaay parce que man bàyyeeguma benn xale ak ba ak yàlla ndax xale yi fi ja jot a jaar ci man yépp dañoo lajj est-ce que caatu yaraax dana lajj est-ce que Zal Baol dana ko arrêté loolu nag la nga xamante laaj la ba nga xamante ne bii mu ngi suñu kanam incha allah. dana dana leer ñu yoon yàgg. yónni yàgg la ñuy freiné nag mooy ay bi nekk suñu réew lañ bëgg mooy paix diggante Joola ak Séeréer ba tax na ak Adrien Senghor teg nañ fa 1 million 300 mm, association Europe Jowaat loolu nag xam naa ay Joola la bu doon Séeréer ma tekkil la ko Joola la ñoom ñoo lëkkaloo ak seen mbokk Séeréer yi nga xamante bii. ñoom ñoo nekk foofu ci adresse Senghor di la fàttali Irok Jowaat benn association bu nekk Jembereng la ñoom ñoo àndandoo tëgg foofu adresse Senghor teg fa benn mise su 1 million 300 mais li nga xamante ne bii moom mooy bitu làmb ji mooy que euh, boole ñaari xeet yooyu nga xamante ne bii doomu nijaay la ak doomu bàjjan ku na xam ne ne séeréer ak joolaa benn lañu doomu nijaay la ak doomu bàjjan pour diggante bi gën a ratax moo tax ñu tëgg boobu la làmb te loolu nag dañu dem ba nag teg nañ fa million 500. mu war a am diggante la 11 ak le 12 incha allah bu ci yàlla àndee foofu ca Ndangaan Samb di dëkku làmb di dëkk ba nga xamante ne bii dëkk ba dañoo bëgg làmb wax naa la ko barki dembe xale yu jigéen ñi bu ñuy génn di euh, dem ca làmb ja dañuy mel ni ñuy dem soirée Wally Seck macha allah ah, dañ koy waaj. waaw dañoo bëgg làmb dañuy dund làmb xam nga ñooñu ñoo xam valeuru làmb dañoo bëgg làmb te góor ñi ni ñuy demee làmb lool na xale yu jigéen ñi di demee làmb muy dëkk ba nga xamante ne bi dëkku làmb la dem nga fa làmb ànd nañ fa làmb ndangaan sàmb incha allah war a am le 11 ak le 12 bu ci yàlla àndee. te loolu nag journal les arènes lañ dem les arènes comme xëyee di muurloo loolu rek dépassé le roi des arènes nag. desere na léegi ki nga xam ne nii mooy Ama Baldé. Uh-huh. nee xam na ay forum xam na ay faible ay faiblesse am. Uh-huh. maanaam benn style bagarre rek la am te moom xam na ko. Uh-huh. Euh, non coach coach Bolle Bolle Gueye sax moo wax loolu coach bi nga xamante ne bii moom mooy coach Modou Xarañ Lo nee na euh, Modou Lo fi mu toll nii moom li muy entraîné maintien lay def. day maintenir li nga xamante ne bii moom mooy formam mais nee na euh, Modou xam na li nga xamante ne bii noonu la amaa di xeexe ndax nee na mu Ama. benn xeetu bagaar la am benn xeetu xeex xam naa mooy arbitre soufflé rek mu màmm yooyu muy def noonu waaw xeexu mbedd yooyu noonu mais Modou tamit euh, xaw nañoo nuroo xeex parce que Modou tamit noonu lay xeexe arbitre arbitre arbitre day soufflé boo dóoree day fayu ñoom euh, mën naa ne mbër yi ñi ci gën a ñi ci gën a ñi ci gën a ñi ci gën a euh, réglé xeex boo ci génnee booy ñaar wala nga génne ci ki nga xamante ne bii moom mooy Gris Bordeaux ñi des ñëpp xeexu mbedd dóoral ma dóor lañuy def boo dóoree ñu dóor boo dóoree ñu dóor ñee nag dañ lay liir xool fi ñuy dóor moo tax bu buñ la dóoree day dal kon daal ki nga xamante ne mooy coach su boole nee na ama xam nañ bu baax a baax a baax façon xeex bi mu am te benn façon xeex kese la am te di dinañ ko fermer bu jouru làmb jaa du soos du diw du raayal kenn. ah loolu la wax de. ma nga noonu na dama ko jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas si xibaaru laa lan nga tàggatoo li may tàggatoowee xanaa tey nag di jaajëfal sama jigéen sama xarit Maalo Seen yaayu aji moom nag dafa jël doomam jarbaate la ma ko mm. aw ma fayam te cër dafa foor mm. Maalo seen sama jigéen ba nekk fële ca Côte d'Ivoire série euh, El Hadj Diop maa ngi lay ñaanal jàmm ak salaam moom saa su ne mu ngi ñuy topp ci revue de l'arène bi ñuy def fii ci Leewtoo TV nga xamante ne bi moom tamit jàmbaar la jigéen ju mën góor la liggéey dundee ñaqam dong la xam looloo ko téye fële ca Côte d'Ivoire ñu koy ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam seen caal yi yàlla na sa jàmm yàgg. cant ak ngërëm ñu ne dañ la bu baax waaye damay dem Basse Assane fekk ma Mouhamed Ba ah ba Pulo Diéré di la jaajëfal naan la happy birthday to you bàyyi bind ak awa booba di la bëggee bu baax a baax sama xarit ba sama bitikee bi la. Mm-hmm. nga dañ koo laqal sonal ko ndeysaan. Ah, waaw luñ ko def mu nangu. Mm-hmm. suñ ko nee Ahmed lii mu nangu Ahmed loolu lañ koy def lu ne. ndeysaan ñëpp ñëpp ko xam ci koñ bi dañ koy bëggee bu baax a baax naan ko ba Pulo Diéré dundal dundal dundal ba doyal jaajëf ah ñaareel bi maa ngi nii de wala aawa nga may def jaajëf. <laughs>